Euh, ca la ñuy door bu fekkee alaaji du juuf élément bi euh, daal di nay euh, yemb ñu daal di dem déglu seex Cheikh Abdou Nugum Nugum yëkkati na ci ay kàddu ba ñaawlu daal mbir yi ni mi nga xam noonu lay demee su fekk voilà pare na ñu ànd ak alaaji Modou Diouf ti del si waat sëñ Tuubaa de moo ne sama mbég képp koo xam ne sama mbég sa mbégte la bis bii bis bii di dis bi safar bu ñëwatee nag ma ci sant la yàlla am na nag ñuy saboté bis bi sabotage bi mënta weesu tëbaski ndox mi am korité noonu des fois nag robinet yi daan na tëj nit ñi wax ci ba robinet yëpp xeliwaat ak forage nii may wax ak ci màggal gi am na ci ay quelques forage wala boog benn ba ñaar ñooñu boo leen wooyee ni leen ndox laa bëgg nu indi la mbàndi ndox ndax dan la koy jaay ñoom seen forage du tëj ñi nga xam ne nag moom ndox mi jënduñ ko maanaam yenn forage yi nekk lu mel ne xayra ay sexaw ga ay ngiraaneel ay tëli bees garab bayi jób nangam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xawma leen wala dégguma seenu tëj ñooñu amuñu ndox muñ naan Touba Mbacké fii ma fii may wax ak yéen ñii amuñu ndox muñ naan ñii amuñu fon fanaan ñii di rootaan ak a toltalaan lii di mbir mu doy ma ni ñi war a wax nan wax ñi war a wax nan wax sëñ Tuubaa bisam bi ku ko jéem a sabooti tëdd ba guddi nekk ci conscience tranquille war ngaa xam ne sa jullit des na sa murit des na li ma mën a li comprendre daal mooy boo wootee ngir jënd ndox am ndox waaye forage yi la wër bu màggal gi jëp seen ñu tëj wane sabotage bi ñu doon wax nag dëgg gu la sooy bu CCB ak Baye Assane Mesre ak waa Solution TV yéen ngi ci def liggéey bu am solo macha allahu rabbi léegi nag képp koo xamante si ni influenceur nga wala waxkat nga te dëkk Touba gii lii ngay gis yu baax di ko wax lii sabotage kat yi di ko def ci dëkk bi sëñ Touba bi wax ko wàññiwul dara ñun saboté dëkk bi saboté wuñ borom dëkk bi ndax loolu am borom dëkk bi nu ko gënal waaye dëkk bi sëñ Touba bi ku defar waroo cee jéem a yàq ndax képp koo xam ne sa poste dong la ñor ba tax ngay tëj yenn wane ak yenn forage yi murid sëñ yi war a màggasi duñu am ndox muñ sangoo ñeneen ñu am ndox muy naan te boo waxee ñu naan la ay nangam ak nangam léegi li ma leen di laaj mooy kan moo fi xam kër kilifa goo xam ne kilifa gu la ci yoonu murid bi këram amuñu ndox sëñ ba naanut wala ña fa dal sanguwuñ nan ma ko wax kon yëf yi am na ci loo xam ne waxuñ lépp sëriñ si rek lépp wala xew waxuñ leen li xew lépp mais am nekk ci ginnaaw ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllum ndox mi sabotage gu metti am na ndax ndox boo ko bëggee jënd nii nu jaay la ñi may wax ak yow waaye boo bëggee naan maa nga bëgg a sangu da nga yoonu paan dox ay kilomètre te loolu jaaduwut sëñ Tuubaa Mbàkke mii buñ ko sàggalut ci bisam bi siggil ko ci bisam bi nga xam ne ci la tukki woon ñibbisi su ndam yëpp am ci kon nag wax dëgg waruñu ci def luy saboté bis bi kon lii ñi ci war a wax nañ ci wax man de naqari na ma dëkk bu toni Touba Mbacke li fi nekk ci forage. voilà mi ngi noonu euh, Assane loolu la ñuy dooree kon mu ñàkkum ndox mi ci Touba démb rek maa ngi jàkk euh, dend ak sëñ Maam Góor mi ngi naan ma Assane Mesere la mu ci waxoon solution boobu mooy dëgg mm. mooy daal ay sanction di daal ci ñi dénk forage yi mm. mu mel ni nag ren moom dafa gën a pur te li jaaxal Sénégal yi bari mooy avant màggal gi Cheikh Tidiane Dièye doon na def di woote ak ñuy jag-jagalaat machine yi ñu ni réparé nañ ba forage yu baree bari di dox quartier yu bari am ndox mm. mais li jaaxal ñëpp mooy cinq jours avant màggal gi ndox mi nee na mëyi ba fii may waxee ak yow quartier yu bari amul ndox waaye am na solo sony bu xam nga Cheikh Tidiane Dieye dafa bindoon si page Facebook am waaw ni ko forage bu am problème na nga jaar fii nga ñëw nga wax ma mm-hmm. Touba fépp réew yëpp ak forage bu doxut ak yooyu ndax bëgg naa xam te mënut a wër fépp xamandoo ko si même li mu bëgg a def mm-hmm. ña fa war a jaar jaar wax seen problème Touba gii ñu xool forage yi si am problème yi nga xamante ni nee nañ gëj nañoo tàkk wala dañoo gii mu defar ko ba ndox mi ball ba ñëpp wane vidéo yi mhm. amul benn forage bu am problème fii si Touba Mbacke mhm. léegi màgg gi ñëw na quarante nangam forage nekk 43 43 forage ndox mi kenn naanu ko déedéet sangu lañu siy def mhm. ak fóot màggal gi nit ñi fa fekk ne fóot nañ ba leen sax ci màggal waaw fóot nañ ba leen seen yére kon togg rek lañ siy def ñu ne robinet yi tëj na ndax lan màggal gi te bu màggal gi jàllee doo déggaat ñu ni forage bi ko repéré réparé na lii ma ngay tàkkaat màgg day mm. jàll. ndox mi ñëwaat mm, ndox mi taal tijjiwaat. Mm-hmm. léegi kon li ma waxoon il faut que Cheikh Tidiane Dieye def ko te bañ see xool leen. Mm-hmm. ñu xool forage yi nga xamante ni tëj nañ si màggal gii fi mu ne nii seen directeur ma nga tëdd ne la wala que moom forage bu ñu arrêté ko yóbbu ko njaareem. ci màggal gi si bisu màggal gii forage bu tëj. kay taal forage bi nañ ko arrêté ñu yóbbu ko njaareem bu màgg jàllee ñu enquête ko ba xam lan moo taxoon forage bi tëj mm-hmm. ndax ginnaaw laataa màggal neen la signalé sa problème mm-hmm. nga am amu benn problème màggal gi ñëw nga tëj ko te Touba gépp benn forage yor ko ndox miy mat wax dëgg yàlla hmm? looloo jaaxal ñëpp xam nga man wax naa dëkk bu ma juddoo bu ma demee barki démb dëkk bi waa ji ne ma waxoo dëkk bu juddoo da nga naan dëkk bi suñuy maam nekk wala suñuy lu ëpp cinquante villages yoo xamante ni moo leen di jox ndox mm-hmm. benn ndox du manque saam gee saam gee teew ba jógee Kawsara egsi na foofu kër Ardo fa la ñuy roote ñoom. Mm. da ngay fay mais ndox ma du manqué te ndox mu neex la. Mm-hmm. mboolem tund wow ku bëgg ndox da koy am te su du tëj waaye weer wu dee ñu xool sa contrôle la nga lakk nga fay. Mm-hmm. kon nag ñii bu fekkee ni nekk nañu fi. Mm-hmm. ñoom bu ñu waree fay ndox du ñu ñooñu ñooñu koy wax sëriñ ñu koy wax wala gouvernement bi ñun ñii dañuy fay ndox wala duñu fay ndox waaye ñoom ñoo fi nekk di organiser organiser ñii dañoo war a fay ndox ndax quarante forage yoo xamante nii benn koñ sax mënoo leen a jox ndox waaw ah. te benn forage bi nekk jaay ndox fu mu fépp si Sénégal dañuy jaay ndox man sama kër dama am ndox ah léegi màggal gi am ngeen yéen am naa ndox noo def kii téye baa nga fa boo wootee dañu ñu duyal la ko ba mu fees ñu ngi sant yàlla bu baax ok kon nañ xool kii yi nga xamante ni dañoo tëj forage yi nga xam ne dañoo tëj ñu arrêté seen i borom yóbbu leen njaareem hmm. buñ leen fa tëjee wala ñu yóbbu leen ci quartier amul ndox ñu root ñu rootal waa koñ déedéet nañ leen arrêté ñoom dañ leen di arrêté buñ noppee ñu ñu yóbbu leen njaareem bu ñu waxee pare ñu folli leen fal fa ñeneen te ñu fal fa ñoo xamante ni nit yi gouvernement bi lay doon Cheikh Tidiane Dièye moo leen di fay direct ok xam naa mu doon bañ a doon koo xamante ni forage bi kat ginnaaw fii la nekk te fii sëñ nangama ko moom nañ ko jox ñu woo benn taalibeem jox ko ko mu yor ko uh-huh. mu bañatee demee noonu ñu la uh-huh. jox ko koo xamante ni gouvernement bi moo ko fay moom gouvernement bi lay rendre compte ok pas forage tëj ko defee ay Touba ça quand di cotiser wala ñii di joxe ñu ni loolu bu mu fi amati uh-huh. forage bu tëjati gouvernement bi mooy ñëw xool li problème bi mu réglé ko bu fekkee nag problème Fara bi am na problème signalé woo ko ba kët ni jonn nga nga ni li taxoon ma tëj ko lii la ñu arrêté la yóbbu la njaareem Mbàkke sax duñ la fi wàcc njaareem lañ la yóbbu ñu enquête la defeere la yóbbu la rëbës nga tëdd fa ba semaine màggal gi jeex ñu ñu xoola daal lay daaj mm, juróomi ati yoo xamante ni liggéey boo sëñ ta bañ la juróomi at juróomi at ak liggéey boo sëñ tabañ mm-hmm. moom lañ lay teg foofu si Dakar loolu diis na de diis na moo lii ñu ñu teg moo gën a diis yow nelawoo déedéet ñaari ñaari fan yi nelawoo ñaari fan yi nelawoo keneen ak keneen nelawut keneen ak keneen nelawut xel dalut te màggal gi xel mu dal la mm-hmm. dañoo ñëw pour suñu xel yi dal suñu yaram yi set ñu bàyyeeku sañse lekk ba rek naan mandi di sant sëriñ bi waaw léegi ñu bëgg ñu ko ñu xañ leen ko xañ lépp seen poos la ñoom xanaa xam ñu jox nangam sax ñu fayaat yokkal leen waaw vraiment vraiment ñu bàyyi rëbb ni xel kon loolu nañ si taxaw nu mu gën a gaawee mhm. soxna bu di daal laa ci xalaat arrêté rek moo koy saafara bu fekk arrêté wuñ leen tëj leen si kase bi du saafara maa ko macha allah jërëjëf alaaji Assane mi ngi koy wax ay xaalis bu baree baree bari la ci sénégalais yi di ñàkk ci màggal gi bu njëkk nag dañ daan tiitooro rek ku amee gan eh, bernde leen jox leen ñu lekk ñu naan léegi nag am na beneen beneen beneen coono gu leen di dab ci ginnaaw bu ñu defalee lépp seeni gan muy duñ gis ndox ñi bëgg a sangu ñu mën a sangu ñu bëgg a jëfandikoo euh, toilette sax des fois ñu am kersay dem fa parce que da ngay dem toilette doo gis benn ndox ñi bëgg a sangu ñi bëgg a def leneen ban jàngat nga def ci màggal gu nekk rek ndox manqué. waaw allah xam nga yëf yi moom euh, dafa hmm. que li ngeen wax nii yëpp defe naa ni lu fi jaar la nit ñi teg ci bët. Hmm. gis ni. ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci zone yi gën a sori sax ñëpp ñu ngi doon kontaan di wax ni vraiment ndox mi ñëw na yegsi na mu nekk liggéey boo xamante ni bii eh, am na ñoo xamante ni bii peut-être rafetlu nañ ko mais am na ñeneen ñoo xamante ni bii peut-être neexu leen. Mm-hmm. parce que ñu ne ministre Cheikh Tidiane Dièye ñëw na réglé na problème mu ndox mi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni bii peut-être da leen di frustré. naqar day daal day am ba tax yenn yi duñ ko bëgg moo tax parrainage bu ñu nee sabotage. Mm-hmm. da ngay mën a gëm ni parce que dafa am ñu yoroon peut-être ñu tuxal leen ñeneen daal dee ñëw. peut-être que duñu bëgg ñooñu réussir li nga xamante ni bi moom la ñu war a réussir. way am ñoo xamante ni bi ña nga ca barab ya am ñeneen ñu leen di commandité feneen. Mhm. foo xamante ni fii pour ñu activer yenn yi. Mhm. pour jéem a indi benn kii bu ko defee ñu ne màggal gi de. dalaat encore ci seen màggal bu njëkk dafa kii daa yooyu mooy li nga xamante ni mooy li ci nekk mais màggal gii moom. Mhm. Euh, li ci ëpp lu jëm ci wàll ndox meeg yooyu euh, ndono la boo xamante ni bi dañ ko donn ci nguur gi nga xamante ni gi moo fi jóge uh-huh. nguur gi fi jóge moom mooy ki nga xamante ni kii tey bu fi inondation amee moom la bu fi kii amee parce que loolu yëpp dañu waroon a ñëw rek di rouler ci kii bi ñu ne ñoom ñu mën a ndam daal di wax ne ah gis ngeen régle nañ problème ndox mi lii wag lii wag laa réglé nañ problème inondation donc loolu ki fi jóge moo ko def. parce que te bu boobaa it nit ñi dañ leen ko doon nangul mais ci toute fois que ni ñu gis ni problème yaa ngi fi ba yitteel xalif bi wax ni jafe-jafe yii kat ay jafe-jafe la. ba président ñëw fi ñëw na fi ay yoon yoo xam ne répété na mbir mi. premier ministre ñëw na répété na aussi tamit li nga xam ne mooy jafe-jafe yi. kon je pense que ni jafe-jafe yi nekk na jafe-jafe yu kii parce que yow yaa ngi ni. Uh-huh. dém ba léegi amuñu ndox fii ñu ne. waaw waaw démb bu dutoon ak citerne bi nga xamante ne bii jënd nga ko. ak mhm. prix bu cher. Mhm. soixante dix mille. nga jëndee ko stern mhm. pour ñu mën a am ndox. ñan ñoo ñan ñoo mën a am moyen yooyu. pour def sa màggal ba pare yëkkati soixante dix mille pour jënd. benn citerne ndox. te bu ñëwee duñ la xaar waaw te buñ ñëwee. boole ci ne da ngay sotti wala ñu dem. Ah. parce que daanaka yow. li ngay jënd amoo foo ko def waaw boo ko jëndee danga koy jënd ba pare comme que kii nga daal di woo jox leen ko ñu daal lool lool nekk na loo xamante ne bi kii bu baax la mais nag li am solo mooy nit ki def dépense ki màggalam ba pare loo xam ne bi da ko waroon am ci kii nga ne ko léegi lii moom di ko lor tax kenn waxu la ne la doo jëndaat parce que mën ngaa jëndaat. Mhm. parce que fi mu toll nii ndox amul tey parce que tey jii suba la màggal gi tey. tey du màggal la suba la màggal gi. donc jëndaat xajaat na fi. dëgg la yooyu nekk lii mbir yoo xam ne mbir yu doy waar mais man jàpp naa ni. Oh. Euh, même bu fekkente ni dafa am ñu ciy bànneexu. Mhm. di def su sudut lool li Assane wax ay sanction moom war na am. war yooyu am de. sanction yooyu d'accord mais man gëm naa ni jeex na ci màggal gi. Ah, loolu nga lu mel nii doo non dootul am c'est pas possible. mënatu la de non non at bu jot ñaka daan def nekkatuñ fi mais Assane joxe na ci joxe na ci solution nag mooy sëriñ bi hmm. léegi fexe ba dugal ko ci loxol gouvernement bi waaw yooyu yëpp xam nga yëpp ay idée la xam hmm. nga boo gisee li nguur gi proposé hmm. nguur gi def na ay proposition wax na ni mën nañ jëlee ndox sox ndox mi feneen donc loolu yëpp dootul nekkati ci contrôle ñenn ñi moo tax ma ne lii benn mbir la boo xamante ni dina metti metti na ren mais gëw ma ni déwén lu mel nii dinañ toogaat di ko wax wa bu ñuy waxaat cim ndox jàpp naa ni dinañ toog ne ah lu mel nii de mosu fee am mhm. gars yi réussir nañ lii parce que man gëm naa ni bilan bi foofu lay nekk wa ilaa ñu ne même bu dul fépp maîtriser nañ ko ñu ne li ëpp ci askan wi de mhm. amatuñu problème ndox mhm. ñeneen ña nga xam ne ñooy poche yi des ñu ne ah loolu kat ki parce que xam nga tamit bu fekkee ne da nga war a defaat yëf yi faw mu jël benn temps mais man gëm naa ni màggal gi moom bu ñu jógee sony bu mm. màggalu déwén lii du nekk lu dul rek ay mauvais souvenir parce que ku jóg ngir bëgg a liggéey mm. ak ki jóg ngir xool problème ba noppi di wut lu mu am ci problème bi bokkut mm. dafa am jóg ngir régler problème mais am na xam ne dañuy xool bi pour régler seeni problème ñaar ñooñu lii bu Siteu di wax naan diamétralement opposé mm-hmm. ñaar la ñoo xamante ni bii bokkuñu dara mm-hmm. parce que am na koo xam ne gis na ni son yu bu mii am na problème mu ne ah sooy bu dee naa xool nu ma régler problème am waaye ma gis ne sooy mi am na problème ma ne problème mu sooy bu bii de mën naa cee régler samay mbir. Uh-huh. loolu nag moom lañ amoon. Uh-huh. maanaam moo taxoon da ngay gis ni état day wax projet bu rëy gars Sénégal gépp tàcc. ah lii de buñ ci kiiwee. Uh-huh. mais bu ñu xoolee ca biir projet ba ñoom ñoo cay lijjantiku. defar ca seen yëfi bopp loolu nag mooy gouvernement yi romb te yàlla bu mu amati. ah yi romb waaw façon gouvernement yooyu yàlla nañ ci yàlla musal. mooy gouvernement bi romb te yàlla bu mu amati. Ah te gëm naa ni nguur gi nga xamante ni gii moom la sénégalais yi tànn teg ko. loolu du ñu ci jaar te duñ ci ne. te loolu moom am naa yàqin ni ni ma leeree woon ne ma <laughs> gars yi projet bi dana jàll. Hmm. noonu la ma leeree ne ma. ci kàttanu borom bi que ni daanañu réussir li nga xam ne moom lañ bëgg ok léegi lii bu dee dafa am ñu ko daan def daan ci dund nag ñoom fu ñu jëm ñu daan ci dund nañ wut beneen kii wa ilaa mën na kër li wax kaso parce que parce que bu ñu leen sanctionné du leen tànn leneen parce que gis nga <laughs> nga gis nga pourtant ah, alaaji euh, lu doy waar nag sama papa amuñ <laughs> bi ay waaji di sotti saterne waaw sama papa daan lii de moom yàlla nañ dunda dunda dund dund ba génn ci mu ne ko déet père bul wax loolu waaye walla wallaahi barke Cheikh Khadim bul wax loolu mu ne mu ni père mu ni père lii kay nag moom bu mu fi jóg moom bu ko ni ko yow donte ne yow lii da nga ciy dund yow wax loolu maa ngi toog dégg de li nga wax wallaahi barke Cheikh Khadim mu ni ko lii moom la ñuy dund mu ni ko lii moom bu moom bu warul jeex sam ni ko mu ni ko buñ màggal ba màggal gi jeex ndox ndox daal di am mu ni ko père loolu du màggal barke Cheikh Khadim ah, sam papa ak may seetaan ah. wallaahi xanaa xam ne kooku sax kooku jaroon fa ngay sotti ah. fa ngay sotti naa naa yóbbu boobu sax fa ngay <laughs> sottee ndox mi di jaay la ah. a fekk naa noppi sax moo wax lii kay mu ne sama lii warut a jeex mu ne lii mu ne lii moom mu ne lii moom père warut jeex sama ni ko lii kay musiba la suba ba léegi amoon ndox mu ne déet père lii kay rek moom moom macha allah dafa neex de na robinet tëj <laughs> waaw ñu leen di ziare bu baax moo tax désordre boo gis ordre la ci ñenn. seen moteur yi kuule bu ñu noppee. dugg si ndox mënuñoo génn foncé kuule. <laughs> ëpp na liñ <laughs> allah.